jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dalee na jàmm ci xibaaru marax yi ponk ca gën a fës rek bokk ca kuréel ga nga xamante ni moo féetee ci assemblée nationale nag lu soxal coowal kon euh, juróom ñeenti fukki milliards ak euh, ñeent yooyu nag indi nañu ci rek ab leeral nee ñu nag lañu ñu wax njuuj njaaj ñoom nee ñu amu ca euh, kuréel googu nag teg ci ne ñu ci doon tudd nag seen lim booy xool toll ci fanweer rek benn yoo xamante ne saytu nañu seen mbir ba mu des nag Ousmane Sonko mi nga xamante ni ak kenn ki ñu naan Ismaïla Ba féete euh, ca cabinet bu euh, Mercalex waaye nag lu soxal euh, ba tey kon enquête ba daanu ko wëyal loolee nag la ñu daal di fësal rek ca plénière boo xamante ne sax ñu ne ñu ngi koy waajal Ousmane Sonko doon janoo ak taskatu xabaar yi indi nag moom it ay wax ci boobu rapport mu jàpp ne rapport bu wérul la ndax moom moomu di Ousmane Sonko njiital Pastef nag nee na du yàgg dara dana daal di nag fësal yeneen ni nag kaddu yoo xamante ne yu ñu doon nëbb la dana ko génnee moom moomee di Ousmane Sonko la xamle jàpp nañu nag euh, nee na règlement intérieur di tëralinu euh, pencum ndawi réew mi dañu ko jalgati euh, commission nationale bi saytu nag weer bi nag jamono jii may wax ak yéen ña ngay amalam ndaje ca RTS ngir nag daal di xoolaat rek lu soxal nag wàllu weer boobu waaye tamit jàpp bis bi nga xamante ni ci la ñu fas yéene tabaski ci jamono jooju coordination de musulmans bu Sénégal ñoom jàpp nañu ko ba noppi ndax nee ñu kon fukki fan ak benn ci weeru ut nag ci lañ fas yéene rek tabaski ñoom ibaadu yooyu nag ñu ne weer wa feeñ na ca Arabie Saoudite beneen ponk ci biir xibaar yi ñaari néew nag gis nañu ko ñeel accident bu metti boobu amoon ca pont Émile Badiane ba gannaaw ba camion ba nag euh, suruxee ñaar ñi doon wër mu mel ni kon gis nañu ko ndax euh, kenn ki gis nañu ko ci suba ki ci des nag euh, daanaka ci ngoon lañu ko daal di gis bokk na ci ñooñee seenub néew muy dawalkatu kon camion boobee di lañ wax ci tàggat yaram ak entraîneur bu sunu nag gaynde yoon ci wàllub basket di Abdourahmane Ndiaye Adidas moom taskatu xabaar yi gannaaw nag ba ñu ko jëlee rek euh, ci bopp nag euh, kon euh, entraîneur boobee ndax wax na rek li nga xamante ni nii moom la ñuy ruumandaat jamono ji indi na ci leeral mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxee loo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. daleen ak jàmm ci xibaaru marax yi ñu doore ko rek ak commission nationale bi nga xamante ni moom mooy saytu nag euh, weer wi ña ca bootu nag jamono ji ñuy wax yéen ña nga ca RTS ngir rek euh, xool weer wi séntu ko waaye tamit wax rek euh, bis bi nga xamante ne nag ci la ñu fas yéene tabaski commission ba ni ma ko waxee mi ngi amal ab ndaje ci jamono ji ñuy wax ak yéen coordination bi ëmb jullit yu Sénégal moom jàpp nañu ko ba noppi ndax ne ñu tabaski fukki fan ak benn la ci weeru août ci lañ ko fas def ñoom ñooñu ñi di ibaadu yi euh, weer wi nag ne ñu feeñ na ca arab yi saoudite ñu teewlu imam maam Góor Ndiaye ñu teewlu ko ci micro Salif Sow ñu weer wi niñ ko daan séenoo fukki région ñett yi ci Sénégal jokkoo nañu ak ñoom ñu séenu yenn bërëb yi dafa lëndëm ndax nawet bi yenn bërëb yi leer na waaye xibaar yi ñu am ci biir réew mi mooy gisuñu ko waaye biñ demee ba ci bitim réew gis nañ ne weer wi feeñ nañ ci réewum al arabi al arabiyatu saoudia muy sax euh, feeñ ko sax goo xam ne teguwul ci calcul teguwul ci leneen te loolu lañu ñu sharia sant fu ñu ko mën a gise ci àdduna bi ci loolu la sukkandiku suba di aljuma mooy doon benn fan ci weeru tabaski kon dimanche ji ñuy séntu bu delsee mooy bisub tabaski tombeeg la onze ci mois de août kon ñu jàpp ko noonu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waxoon nañ ko ci euh, ponk xibaar yi commission bi nga xamante ne nag euh, moom moo yore wàllu ko enquête bi ci pencum ndawi réew mi ñeel nag euh, kon milliards yooyu ñu doon tudd ne njuuj njaaj dafa am mu toll ci juróom-ñeent fukk ak ñeent commission parlementaire ba janoon nag taskatu xabaar yi la ñu xamle nag mooy njuuj njaaj amul te nag am na ñu ñu doon déglu seen lim toll ci fanweer ak benn déglu lañ leen ñoom ñëpp ba mu des nag Ousmane Sonko mi nga xamante ni moo doon jiñaate ak kenn ku ñu naan Ismaïla Ba bokk ca cabinet Mercalex ab plénière nag ñu ngi koy waajal ci wàllu woowu enquête bi nag ñu ne euh, jeexagul dañu koy wéyal Alassane Ba sa Pape Sangone Mbaye ci li mu génnee tey rek journal observateur mu ngi ci doon wax ni moom maamul jàlloo commission bi setal na ko wante ñoom ñi bokk ci commission enquête bi bëgguñ cee sori ndax nee nañ dañu bëgg a tënku ci li règlement intérieur assemblée nationale wax ci li ñu mel nag ñoom lu ñu xam le rek moo di ne constaté wuñu maanaam nemmeekuñu benn yoon ginnaaw bi ñu saytoo ba noppi lu jëm ci wàllum luubal ay koppar. à la fin de nos investigations que nous n'avons un quelconque détournement de deniers publics je m'en limite là. ay cadre nag yi bokk ci administration bu jëm ci wàllum domaine bu jëm itam ci wàllum euh, fiscalité ak ñi nga xam ne sax ñoo doon titre foncier bi nga xam ne tey jii moo waral coow li di 1451 R jot nañ leen déglu nag wante moom Ousmane Sonko mi nga xam ne moo jot a tuumal kii di Mamour Diallo commission bi nee na jotu ko déglu ndax teewut wante nag nee nañu loolu. du gàkkal benn yoon seen liggéey bi. déedéet du yàq dara ci suñu liggéey ndax li tax du ko yàq moom li mu wax lu leer la ndax ci conférence de presse la ko waxe bi ñu convoqué lu toll ci lu ëpp fanweeri nit moom rek moo ci ñëwul ak benn waayam yoo xam ni moo moom ñoo bokk liggéey ñoo bokk parti ñu di ko wax Ismaïla Ba Ismaïla Ba moomu mooy gérant Mercalex defe naa ne bu ñu demee ci plénière da ngeen xam kuy Mercalex da ngeen xam koy atlas ak ban rôle la ñu joué ci dossier bii waaye mu lànk ni du ñëw wax waayam jooju ni ko lànkal bul dem loolu nag naqarlu nañ ko mettit lu nañu ko ndax bokkul ci comportement boo xam ni comportement républicain la bokkul ci yit ku bëgg leeral ndax aussi mënoo jël nit ñi nga accuser leen ca fa ñu koy leeralee nga ne du ma fa dem njiitalu assemblée nationale mu mel ni kon jot na li tukkee ci liggéeyu commission enquête parlementaire bi ab plénière daañ ko amal ci plénière boobu li sax lañuy ñuy décider ana ban jeexital la ñuy jox nag affaire bi nga xam ne nag mu ngi commencé durer. lu soxal rapport boobee Alassane euh, Ba nee ñu nag euh, daanu ko yóbbu daal fa mu war a dem yëpp lépp rek ngir ñu indi ci ay euh, leeral ki ko xamle nag ay miru ñing la moom mi nga xamante ni moom moo jiitee groupe bu Benno Bokk Yaakaar député bi di Cheikh Seck nag moom tontu na Ousmane Sonko ndax la mu jàpp ci njiital Pastef mooy amul kon benn rek respect maanaam joxul cër li nga xamante ni moom mooy kon suñuy institution di bànqaas si nguur gi Alassane Ba ñu teewlu ko moo taataan seen i kàddu jàpp naa ni bu plénière bi paree fu mu war a yegg ak institution bu mu war a dem rek dina fa dem ñooñu nag ñooy ay juge ñoom ñoo xam naka la ñuy def ak lan la ñuy wax ak bu ñu jotee rapport bi lan lañ koy jëfandikoo ñun daal suñu liggéey mu ngi yemoon ci ni commission parlementaire bi wax na ne 94 milliards yu ñu détourné moom amul parce que mënul nekk baa bi bu jëwee ah lépp lu ci nekk dinañu dinañ ko génne waxtaane ko fépp fuñ ci jaar ak kuñ ci waxal ak kooka lam ñu tontu. nee na y rien de sérieux non cette commission y avait que du sérieux il faut demander aux gens qui ont été auditionnés nañu laaj fonctionnaires yi fi jaar ak keneen ak keneen et puis y a pas de sérieux Ousmane mooy kan c'est un inspecteur des impôts mais ñi ci commission bi ñëpp ko ëpp diplôme ñi ci commission bi ñëpp ko ëpp expérience d'état ñi ci commission bi ñëpp ko dàq jàng nit ki dafay wàccee boppam. xam ni sénégalais bu mu mun di doon sa réew soxla la sa institution yi réew soxla la da nga war a dem wuy ji dégg naa bi mu waxee ci pétrole bi aussi police woo na ko nee na du dem répondre amul lu muy wax mbiru nag dana yegg foo xam ne des di toogaat nag jàng parce que am réew aussi dafay am organisation dafay am méthode mun loolu lu la neex nga wax ku la neex nga saaga ku la neex nga accuser ca bu ñu la woo nga ni doo dem mais de quel droit il se donne Ousmane Sonko moomee ñu tontu janoo nag taskatu xibaar yi moom njiital Pastef àdduna nag ah, ci rapport bi nga xamante ne dukkee duppee tukkee na ci commission bu assemblée nationale ndax jàpp na ni rek rapport boobu du rapport bu wér waaye tamit dañoo jalgati tëralin ah, bu pencum ndaw yi réew mi nee na nag du yàgg dara ah, dina am leneen loo xamante ne dana ko yëkkati muy nag loo xamante ni ñu ngi koy nëbb moom Ousmane Sonko nee na dana ko ne fàng ba ñëpp jot ci Cheikh Diop ci leeral. Ousmane Sonko euh, daal di dummuyu rapport bu commision d'enquête parlementaire ab rapport bu mu jàpp ne dëppawul ak yoon ba tax muy wax violation bu règlement intérieur bu assemblée nationale. gisuma convocation yi nee nañ yónnee nañ ko waaye gisuma ko dew ma fa su ma su ñëwoon si man it dama leen koy delloo ndax du ma fa dem ñoom seen bopp dañu violer règlement intérieur bu assemblée nationale. ñi violer lii ils sont passibles d'un emprisonnement de un à six mois et cinquante. à 300 000 francs donc ñoom amuñu woon habilitation pour naan dañuy def conférence de presse ci rapport ci liggéey boo xam ne présenté guñu ko assemblée nationale. nous les poursuivrons pour ça. leader bu Pastef di xam ne ni du bàyyi benn yoon mbiru 94 milliards yi mu daal di nax saay ci loolee dina teggi ki nga xam ne moom moo di procureur de la république daal di dëkkmal directement juge d'instruction ngir ab plainte. ak itam constitution bu parti civile. procureur bi mu defee conférence de presse am procureur bu Macky Sall nga xam ne njaxlaf na trop ci waa opposition bi kooku dootuma ko woo dootuma wax ak moom waaye ñun décider nañu saisir directement le juge en vertu des articles 2 et 42 du code de procédure pénale parce que yoon may nañu ko. bu ñu foogee ne dossier bi dañu fexe ba jaare ko noonu mu naxasaay dañuy nax seen bopp consulté nañ suñuy avocat te ci semaine bi bu soobee yàlla nañ saisir directement le juge te loolu gàcce la ci procureur. opposant bi le nag di xam ne ni dina jébbal ay xibaar yoo xamante ni dafa tënku ci ab njuglan lii mi ngi ko nar a fësal ginnaaw bu ñu tabaskee ba noppi. lubal ngaa ngi continuer de tey la waalo gën a ay nee nañ dañuy joxe yeneen bloc pétrolier. gis ngeen ba ñaari fan yëpp ñetti fan yëpp lu génn ci presse bi Macky balaa muy mun a liggéey ak nit il faut mu doon ku jóge bitim réew ba pare doon ab saay-saay boo xam ne condamné nañ ko am na dossier judiciaire. combat pétrole bi bu ñu ko gañee gañe nañu combat pour le développement du Sénégal système bi lañu bëgg a raser est-ce que peuple yooyu ñoo ñu war a gën a bëgg seen bopp ku nekk toog sa kër naan jaar na ni foo romb ñu naan la félicitation ñun soxlawuñu ay félicitation bu yàggee nag ñëpp dinañ ci raxas seen loxo seetaan leen ak woyu yi régime woyu lañ leen di seetaan ngeen xool fu ngeen jëm ak moom. moom njiit bu fo di indi ak njàppaleem ci Guy Marius Sagna ak itam Adama gay moom mi lee di àddu ba tey ne xañ gi nga xam ne rek dal nañ leen ko xañ ngelaw lu féex du lu ñu teg ci yoon. Euh, commission boobee ba tey jurub euh, coow Cheikh Diop euh, ndax wax nañu sax nee ñu ci wàllu yoon amul benn gëdd dafa doon loo xamante ne rek wàllu institution ak politique da ca lalu maître Aboubacry Baro moom moo gisee noonu mi ngi sàkku nag ci rek maanaam yoon mu dugal rek loxoom ci boobee commission d'enquête ndax commission bi sax nee na amul sañ-sañu sax di setal koo xamante ne nii dañu ko tuumaal dañ ci teewlu abu Aboubacry Baro ci micro Fatimata Touré. lu ñu Euh, d'enquête parlementaire dafa di benn outil pouvoir boo xamante dañ ko jox assemblée pour mu saytu contrôler action gouvernement. alors ci kaw loolu dañ gis Afrique surtout yenn pays Niger wala euh, Burkina Faso euh, routine la c'est-à-dire que à chaque fois commission day am mais fi Sénégal gis nañ ni exception la commission am na pouvoir pour enquêter day enquêter sur place et sur pièce. day saytu benn mbir boo xamante ni ça n'a rien à voir avec euh, des faits objets de poursuite judiciaire mais day porter aussi aspect institutionnel et politique du juridiction mënuñu mën nañ ne blanchir nañu mais aussi il faut que moom benn lu ñu wooyee euh, contradiction le contradictoire principe du contradictoire kooku ñuy wax dañ ko blanchir à ma connaissance ñëwul ba ñu déglu ko donc à partir de ce moment est-ce que amul euh, unilatéralisme benn côté rek la féete donc à partir de ce moment je pense que justice am na droit am sañ-sañ euh, saisir si dossier boobu si aspect et euh, juridique bi. jamono yi yëpp nag ñi ngi doon noppalu waaye tey déggaat nañu leen waa aar li ñu bokk ña nga woon ca place de la nation ni ñu koy baaxoo di def di rek nag euh, dox boo xamante ne nee ñu ci dal lañu koy def waaye it wax li nga xamante ni euh, moo leen euh, métti bu weesoo nag kon contrat bi ak gaz bi ñi ngi sàkk waa aar li ñu bokk ñu bàyyi nag ki nga xamante ni moom mooy Guy Marius Sagna tey nag seen marché pacifique boobu jàppale ni takk der yi nag maanaam wër nañu leen rek ngir lenn bañ a am dañu ci ànd abi fay Faye Modou Diop. ma ngoog Habib euh, du ñàkk kon ñu euh, dir siwaat ci laata ñuy euh, jeexal xibaar yi bu dee yemb na moom abi fay ma ngoog kon Habib euh, du ñàkk rek ñu euh, dellusiwaat ci euh, ñu wax ci leneen muy entreprise privée yu nekk fii ci Sénégal ñoom nag ñi ngi joxoñ baaraamu tuuma nguurug Sénégal gannaaw nag bor bu mu leen yoral muy nag koppar boo xamante ne tëri na ñu ne nguur gi dafa am rek jafe-jafe di fay ay borom ci wàllug privé bi te loolee bu ñu xoolee sax dafay indi ab nasaxal ci yi nga xamante ne nii moom mooy entreprise privée yi ki xam xamle nag moom xam-xamam màcc na ci wàllug koom Astou Diagne euh, mi ngi sàkku rek ci nguurug Sénégal daal mu xolaat yi fii bu baax a baax ndax loole yëpp rek ni ñu ko waxee dafay nasaxal entreprise privée yi fii ci Sénégal euh, dañu ciy teewlu moom moomee économiste bi ci micro Maguette Gueye tey jii état du Sénégal am na koom bu war a mën a fay li ñu li ñu leb ci ay bor donc loolu du samay kàddu waa UEMOA ñoo ko wax ndax UEMOA mooy xayma ci huit pays yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir euh, lii bi euh, intégration bi ñuy joxe ay note di wax ne lii mooy stogu dettu tel pays lii mooy stogu dettu tel pays et que tel pays war na def tel jéego pour fay detam Sénégal bokk bokkul ci pays yi nga xamante ne par exemple commission bi bind na ko pour wax ne ah attention Sénégal sa sa niveau dette dafa xaw a dafa xaw a jéggi dayo Sénégal bokk na ci pays yi nga xamante ne dans wax detam dette bu acceptable la bu ñu mën a fay la bu bu suñu suñu capacité euh, de remboursement la le secteur privé national levier la en termes d'investissement national également levier la en termes de création d'emploi et que benn gouvernement du kafe di bàyyi dette ba nga xamante ne euh, secteur privé daf ko amee ci bañ ko fay parce que euh, secteur privé bu daanoo économie quasiment mooy daanu moo tax fi mu ne nii enjeu yi nga xamante ne état du Sénégal teg na ko mooy def que ay solution yu gaaw ñu wut ko ci ñaari semaines yi di ñëw pour résoudre problème mu dettu secteur privé bi faire faire de sorte que ñu am ñoom euh, l'essentiel de ce qu'il leur faut pour ñu liquider seeni engagement yi nga xamante ne jël nañu ko par rapport ak secteur privé boobu ñu dem ba Ziguinchor ak pont Émile Badiane ba ñaax ñoo ñu ñu doon wër nag gannaaw accident euh, ba fa amoon mujj nañu leen gis euh, seeni néew bokk nañ rek ca ka doon dawal kon euh, camion ba ay nappkat nag ñoo leen gis kenn ki ñu ko gis rek ci suba ki ci des nag ci boori ngoon lañu ko gis Boubacar Diassi Lamine Mandian ci leeral. ki ñu njëkk gis ci ñu réer gannaaw bi accident bi amee alxamis ci pont Émile Badiane ñoo koy gis fii ci lu jege ñetti téeméeri mètre fileeg pont bi ay nappkat ñoo gis kooru Abdoulaye Bari di chauffeur camion bi daanu ci biir dex bi ñu fekk ko fii ci booru 7 ci suba laata ñoo woo sapeur pompier yi ngir ñu mën kaa génne ci ndox mi ci teewaayu gendarmerie nationale waaye it ci askanu Ziguinchor ñaareelu koor bi mu doon bu Abdoul Khoudous Diallo ñoo ngi ko gis booru fukki waxtu ak juróom-ñaar moom it ci dex gii di Casamance waaye fi ñu ko fekk soriwul quai de pêche bu Ziguinchor yaayam gi ñëw ngir moo mën kaa wóor ni néew jarbaatam la daal di tal ay rongoñ ñu nemmee ko ni fii it mbokk yi jege ñaale yi daal nañu ñëw ngir leer lu ni seen mbokk la ñu gis. waaye it chauffeuru poids lourd yi ñëw nañu ngir méttitlu accident bi gannaaw bu ñu teewee ci bu ñuy sutural ñaari victimes yu njëkk yi. ni ñu ko waxee woon gannaaw ab diir bu ñu doon euh, noppalu ne tekk kenn déggu leen tey delloo nañu buum ca boy boy ga muy waa aar li ñu bokk ña nga woon ca place de la nation amal fa rek ab euh, dox boo xamante ne ci tekk lañu ko def waaye wax ci lu leen métti bokk na ci contrate pétrole yi ak ñu ne na leer waaye tey dolli nañu ca leneen muy nañu bàyyi Guy Marius Sagna dañu ci ànd ak Habib Faye lu weesu ay téeméeri doomi aadama ñoom ñoo ñëwoon dox doxu ñaxtu ca allée du aar li ñu bokk plateforme bi lee nakarlu nañu bu baax contrat yi nga xam ne xaatim nañ ko ñeel wàllum pétrole meeg gaz bi waaye tamit leneen la gën di sàkku rek moo di ñu bàyyi Guy Marius Sagna mii di activiste mu ñu tëj ci kaso gi. parce que soo amee naqari manifestation jaamu yàlla la li ma njëkk a def baalu ak xale Sénégal seen bàyyi leen tooñ watal Macky Sall ñun ciy jégalu du ci baalu ak. monsieur Dimasol waaw kii dafa nekk citoyen sans lenn di jug aussi di xeex injustice gis nañ ne pétrole beeg gaz beeg zircon bi lépp loo xam dafa nekk suñu ressource naturelle amul benn justesse bi si am donc injustice boobu noonu moom la ñu xeex ndaxte alalu mbooloo kenn kenn waru ko foowee. Euh, wone ne ñun suñu pétrole ak suñu gaz ñoo ko moom moomeelu askan wi la niñ koy defee ak niñ koy euh, boobu ba léegi liñ ciy gis lëndëm na te te te te te wóoluwuñ nekk ci kanam. dañoo nekk si régime boo xam ne régime dictature la dañ naan rampante mais tey jii ku ne gis na ne dictature bu bu taxaw la bu jëm kanam moo tax képp nga xam ne nii yëkkati nga baat dugal ko ci li nga xam ne nii yàq-yàq la maanaam ressources yi pétrole gaz zircon or lépp loo ci wax rek ñu ne la nañ ko nañ leen jël denc lan doxum ñaxtu tey gi doon benn bu njëkk gannaaw ba nga xamante nit amaloon nañ ab tekkaaral lu weesu ñeent ak ayug bés plateforme aar lu ñu bokk na ñoom bile yoon bu ñu taxaw benn yoon xam nañ ni combat bi yëpp li ko waral mooy Guy Marius Sagna li tax ñu téye ko mooy combat bii la donc combat bi kon du taxaw c'est-à-dire même bu ñu jàppee ñeneen dañuy continuer combat parce que xeex donc aar la ñu bokk la Frapp France dégage mooy mooy fexe ba Sénégal ñu aar la ñu bokk scandale bi leer mu justice bu leer maanaam ñoom gain de cause ci xeex donc nag ñoom ils vont pas s'arrêter mais on va on va pas s'arrêter c'est très simple le combat continue ak xeex li nga xam ñoo ko moom pour Guy ndax bu fekkee ni dañu nekkoon ci réew moo xam ne liberté dafa am liberté d'expression liberté dafa am du ñu teggi mari Sagna ndax liñ koy liñ koy reproché amuñu dara liñ koy reproché ndax moom wax ji ñuy wax ni moom la wax waxu ko dafa am ñu ko signé ni ñoom ñoo ko def moom booba fekk ko fa teewu fa waxu ko donc li tax mu jàpp ko mooy li muy doon xeex pour suñu pétrole bi. mbirum xeexu pétrole ak gaz bi mën na am pause mën na am ñu xoolaat. waaye mënul mënul ñoo abandonné abandonné mënul nekk parce que mbir la boo xamante ne comme nu ko constitution bi waxee sénégalais yi ñoo ko moom donc sénégalais yi suñ fi gisee ay lënt-lënt dañu war laaj transparence ci loolu. biir doxuk ñaxtu waaye takk der yi ñoom ci seen boppam it saytu nañu ko bu baax ngir. dara bañ fa salfaañoo waaye tamit jóge ci place de la nation dem ca rond point RTS ngir jàkkaarloog askan wi plateforme aar li ñu bokk di woo gouvernement bu Sénégal mu bàyyi activiste bii di Guy Marius Sagna nga xamante nit dañu ko tëj ci kaso bi gannaaw ba nga xamante nit publié na ci page Facebook am ñu ne sax la ñu koy toppee moo di fausse alerte au terrorisme. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Habib euh, Faye ecole Amadou assan ndoy nag euh, tëj ba euh, du yomb ndax commune ba àndu ca askan wa ànduñu ca askan woowu nag tey seen xel mën naa dal sax ndax jëwriñ ñi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu njàng mi ak njàngale mi moom it bépp dogal bu ñu jëloon ngir tëj daara jooju nag moom da koo daal di rek neenal ñu ngi waajal sax am ndaje diggante mairie bi lay doon mairie bu Dakar Plateau ak ministère bi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu njàng mi ak njàngale mi ci altine ji lay doon Mouhamed Samba Diafra teewaayu takk der ci bile bërëb loole moo gàllankoor marche bi nga xamante ni si municipalité de Dakar Plateau waroon na ko amal jamono ji nag lépp lu doon indi coow mën naa ñàkk. ministre de l'éducation nationale jokkoon ak moom expliqué na ma ay mbir xam ngeen ni moom bi mu toogee yàggul noonu te li ñu wax ni 2018 lañ ko def ah waaye li ma ci rafetlu may rafetlu taxawaayam mooy bi coow amee dafa jox instruction ay services am yépp ne leen bu fi kenn tegati tànk bu fi kenn yëkkati dara ba nit ñi daje waxtaan bi xam mbir yi lan ba décider. moom mii di kilifa nag ci parti socialist di xamle ni nekkul ni dafa àndut ak projet bi nga xamante ni sii mooy sopparndi école bii di Amadou Assane yi intérêt yi ñu ñaan li ñu laaj ñi ñu sas ñu aar leen loolu rek moo ñu fa yóbbu euh, yóbbu fa information yoo xam ne bu ñu jàppee ni ministre bi amu ko ñu jox ko ko ñaan ca ministre boobu nag mu aar suñu askan te ñun tey amuñu sax mètre carré boo xam ne jagleel nañu ko pour des projets euh, d'équipement socio euh, économique ak yooyu donc yooyu il faut gars yi intégrer ko bu ñuy waxtaan. waaye nag ñoom municipalité bi wax ni rek duñu dellu ginnaaw benn yoon tey ñaan askanu Dakar Plateau ci ñu gën a saytuwaat bu baax école bi. kon damay ñaan nit ñi xëy na vigilance bi bu mu dakk parce que ku dem ba ne day ñëw daaneel bâtiment xam nga kooku sore na ca la muy def ba en tout cas askanu Plateau ne ñun. d' accord nañ ci li ànd nañ ci li ah bu boobaa euh, évolution dafa am ci àdduna donc tëjuñu dara waaye nag dañu fi ba fi may wax ak nii man gisuguma këyit donc officiellement dans le cadre de la république je ne suis pas informé. donte ni sax marché bi amul mairie bu Dakar Plateau mu ngi ñaawlu dogal bi ñu jël ngir naroon a tëj école bi nga xamante ni si moo di Amadou Assane yi tàggat yaram ci la ñuy wax ak ki doon tàggat suñu gaynde yi ci wàllu basket muy Abdourahmane Ndiaye euh, Adidas nag euh, ñu dàq ko rek euh, ci maanaam loole mu yoroon ci jamono ji nga xamante ne nag ñu waajal afro basket bi ak mondial ba ca Chine coow li nag bari woon na lu waral ñu dàq ko moom Abdourahmane Ndiaye Adidas indi na ci leeral ci janoom ak taskatu xibaar yi jaretu Fall. mu doon ab génnam bu njëkk ginnaaw bi mu yëgee ab dàqam ci équipe nationale bu basket bile moom Abdourahmane Ndiaye ñu gën ko xam ci Adidas dellu waat na ci problème yi mu am digganteem ak fédération bi. L'entraîneur s'abstiendra de faire des déclarations publiques. dans la bi ma gisee ñu daal di xaatim ne entraîneur bi warul amal benn déclaration publique loolee dafa doon loo xamante ni euh, daf ma bett ndax foog naa ne lu dul équipe bi euh, jëm ca kanam doon loo xamante ni rek lu ma ñor la waxtaan naa ci ak ñoom du benn yoon du ñaari yoon ne du rek mbiru xaalis moom moo may boole ak li nga xam ne rek moom moo di fédération bi ndaxte man équipe bi moo ma ñor. parce que c'est le Sénégal ngay Gaynde basket yu góor yi dellusi waat na ci relation bi mu am digganteem ak joueurs yi. j'ai une sama diggante ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di joueurs yi nag foog naa ne leer na ñëpp ndax dama am ak ñoom ay relation yoo xamante ni euh, doonul rek diggante joueur ak entraîneur waaye dafa dépassé foofu ndax yàggul dara maa ngi dégganteeg ñoom di leen ñaax ngir rek ñu gën a mën a góorgóorlu ba sax may ñaanalaale équipe bi ngir rek mu daal daal di jël ndam li derrière je formule des prières devant tout le monde sincère du fond du cœur. Moustapha Guèye bi fi nekkoon entraîneur bi doon tàggat gaynde yi jigéen yi moom la ñu tabb mu nar a yóbbu yi nga xam ni mooy gaynde yu góor yi ci coupe du monde basket bi nara door 31 août jàpp 15 septembre. ñu koy jaajëfal bu baax a baax jaareetu Fall mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak ci xibaaru maraîchers sant leen gërëm leen bu baax a baax ci kanam 20h xibaar yi ci nasaraan daa ngeen ci ànd ak